Bellingham mu commencé rangale ay trophée demagul fenn loole bokk na ci liy ubbi xibaar yi ak catalan yi ak entraînement bu Real Madrid gars yi gërëm leen sant leen ànd bi ak Aladji Malick TV am na solo Aladji Malick ci kàddu gi seetaankat yi yéen ñu baax ñi nga xam ne am ngeen i teggin teyit xam fi ngeen di teg seen tànk ci wàllu information loolee du ngeen ko rëcc benn yoon yow mi ko defagul aboneel yow mi abonné pare nga xam ne yaa ngi ci kër gi cant ngërëm ñeel na la aimel suñu vidéo bu la neexee commentaire bu neexee coppate nga xam ni mooy sa mbégte catalan yi ma ziar leen bu baax a baax samay xarit lan ñoom samedi dañuy naajee yow ndax ay célibataire lan dara waru leen merengue yi nag ñoom teel nañoo xëy joxe dépense bàyyi soxna si ca kër ga ñoom yor nañ ay ñaar ñetti soxna ak yi benn soxna loolee nekk taw féex ma kontaan ci yéen caffe ak yéen tooñ leen continuer ci xibaar yi Bellingham ah, beneen trophée akaabale ay trophée trophée bii nag bokk na ci yi nga xam ne yu am solo ma nga noonee mu ni ko nikk téye ànd naa ak moom ci entraînement merengue yi mu nekk trophée boo xam ni fële ca football espagnol bu am solo la waaye nag Athletic Club mooy dalal ci Copa ah, del Rey bi ah, kile di FC Barcelone mu nekk match boo xam ne daanaka tey ba léegi fi mu toll nii Barcelone match yu métti yi mi ngi koy enchaîner di ko continuer di ci dabaj dabaj yi match yu métti yooyu bokk na ci ñu ñaanal ci catalan yi jàmm ak salaam ñaanal ci moom moomee ñu mën a dóor li nga xam ne mooy victoire bu am solo la kàddu yooyu ñu ngi ko jëlee ci Mondo Deportivo La Corogne beneen bi mooy entraînement bi Vinicius Junior ak doomu ndayam mënoo leen a xàmmee mënul wax ne xàmmee ne ñoo bokk benn équipe nationale ndax kenn ku mu ci mën di doon xadar ji nga xam ne brésilien moom la mën a am ci football loolee la ñu tekki taabal yi ci tàggatu gi nga xam ne daw nan bu baax a baax tàggatu googee am na keneen ku ma ca gis di Luka Modric ak ki nga xam ne mooy Nacho Fernandes ngeen gis ko ci ginnaaw moom it ak màgget la màgget gi jiitu ko euh, di kii di euh, Luka Modric te it màgget googu mënoo ko xàmmee ci yaramam ndax entraînement yu mat sëkk yi nga xam ne moom lay def ci bu tooy ci waa Mali ànd ak ki li nga xam ne mooy international français bi double international euh, français bi ñoom ñaar ci entraînement bi mu am solo bu baax a baax Fede Valverde ak ki nga xam ne mooy nga am gonek anglais gi ñoom ñëpp yemb nañ séngam jërë ngeen jëf ànd bi am na solo.